waaw di sant bu baax Boucher. Uh-huh. xam nga wolof Njaay di am baat bu am solo bu mu wax. dëgg la. dafa ne ko dem ba xamatoo foo jëm. Uh-huh. da ngay dellu foo jëm. barke Serigne Bamba. te man fii laa juddoo. ndeysaan. fii laa uh-huh. laa yaroo fii laa mag. dëgg la. Boucher lu ma am rek bàyyi jënd bu baax jéem a ko defal. dëgg la. maa dem ba bu sa mbor ku laaf sa ñoom Béthio Ndao. dëgg la Anta Malick Gana Fall mu jigéen biram farba samba saa neex saa pend mu jëre jonga may kàddu jëlal. dëgg la ma coraab sa njaay ma bu saab sa njaay ma ñox raab sa njaay birama daal ak sa njaay. dëgg la ki Cheikh Saliou Mbacke ne yaay man maay yow. Oh, oh. jàpp ci yow ay dëgg-dëgg jàpp ci man. dëgg la te ku ko def dana ma noppal fii noppal ma fu nu jëm te dana def lu ma neex. dëgg la Cheikh Béthio mën na ko Mbacke mu ne ko ñi ànd ak yow du ñoom yow mi ànd ak ñoom du man Serigne Saliou dëgg la jubloo dëgg la yàlla boole ba ca dëgg la muy ay dogali suñu borom oh, tey nag sama ñëw tey gi Uh-huh. ñëw tuub la. Ah. ñëw tuub la. tuub tey jéggalu. ñëw dëbb ca tuub. dëgg la ndax ab taalibe. Uh-huh. dara waru ko ci digganteem ak sëriñam lu defe ndigal. bàyyi tere te tegu ci gaaw yoon. Uh-huh. te cool yi bari na. bari si Omaro Omaro ji ba doy dox sa morom. dëgg la te ñu muy tudd du tudd seenu bàyyi. dëgg la ñu ciy dégg wax yu metti mu metti lool seenu xol. dëgg la ma ñëw dinañ ko tuubal ngir seen jëmmi bàyyi barke sëriñ bi maa ngi tuub maa ngi jégg laay dëgg di yeesalaat sama taalube yeesalaat sama njëbbal di sax ci yow di sa fi mbaam nga dama sa séer mu ne barke sëriñ ndigal li ma jox nag dinaa ko jëfe ban ndigal la la jox sëriñ bi nee ma watal sa bopp bi te bàyyi sol yëre tubaab dellu ca yëre nga doon sol dellu ca xaftaan yu mag yaag garaam bu bëya te yeesalaat cant barke sëriñ mbaam sant bu jot ñu di ko teewe di ànd di bàkk sëriñ di ko jëfal di ko waxtaan. sëriñ Saliou Seydou Nathim sax nag ci doon sunu bunt ci sëriñ bi. dëgg la ndax ñun moom la ñu sëriñ bi booleel. dëgg la. sëriñ Cheikh Béthio jaamu sëriñ Saliou mii bàyyi sëriñ Saliou ndigal. Uh-huh. yàlla dogal doon jun jur am na juróomi at moom mil na ko dippee. ndeysaan. bi sëriñ Saliou ndigal cuun doon nee bàyyam. Uh-huh. bi sëriñ Saliou ndigal cuun doon nee bàyyam. Uh-huh. daa yeesal ndigal gi ci ñun. dëgg la. mag mag Serigne Seydina Thioune. dëgg la kon ànd bi rafet na. dëgg la ma koy ñaanal Thioune Béthio moom it yàlla guddal fanam te wéral cërëm. amiin di ko wax ni. bis ni tey. na xelam dal ci man. lépp lu mu bëggatul. dootuma ci dégg dootuma ci gis. kon dootum la déggati ci dara. dootu la mat. dégg na man yow am ci loo bëgg koy dugal ci Serigne Touba nga xam mm-hmm. moo tax mu daje fi tey. ñu mm-hmm. nga xam ni. noonam yii mm-hmm. jëloon ko ànd moom jàpp ni am na lu man ci moom mm-hmm. te mënul ci moom dara mm-hmm. mu yegg si bi mu yegg see daa jéggal dëgg la wax ne xam am na loo xam ne waroon nga koo dox te doxoo ko dem nga nag léegi ba xam ne loolu du yoon nga ñëw tuub si ñun liñ mën mooy jéggal la barki sëriñ ma waaye nag jéggal duub day xalu sawara day mel ni ab xal ab xal boo ci laalee sa loxo bu la lakkee dootoo ci woon dootoo ko laalaat. Uh-huh. kon di def di defaat di tuub di tuubaat du am solo. Uh-huh. ñëw nga sëriñ bi ndax yow ci njabootu sëriñ bi. wallaay dëgg la te ku baax la tudd na Omaro mu Cheikh Mbaye te ku baax la sax lool nag na nga ko sàmm te dox ci. te uh-huh. fas yéene dox ci ak taalibe. macha allah ma dina xamal ni. leneen loo dox lu dul ak taalibe dalay sonal. wallaay dëgg la nekkal ci ab taalibe nekkal ab murit wéyal di nekk ab cantaakoon. ni la nit xamee woon ne ci. billaahi sëriñ bi nag bég na. ñëw nga ci màggal gi yaa ngi bi na nga ci wéy. dëgg la daal laa am lu ma macha allah. macha allah amiin amiin amiin oh oh macha allah jërëjëf. mbokk taalibe yi yéen ñi nga xam ne da ngeen di ñëwee ay moto biir Touba na ngeen xam ne boo leen ñëwee ba ci yoon bi gendarme yaa ngi fa fees dell gaa def ay barrière di nangu moto jàmbur yi ku ñëw maanaam. autoroute à péage bi moto bu ci yéeg xamal ni doo romb yi loolu moom man maa leen ko wax man Ketchup gendarmerie yaa ngi ci yoon bi fees fa dellu autoroute à péage bi la ma fa gis ci ay moto ëpp na dix mille moto fi mu nekk nii amul nga sol kaks ak ñàkk sol kaks ak si am moto la ñu buggul mu jaar ci péage bi dugg biir Touba wax naa leen ko nag seen moto yi tée leen ko seen kër yi ku fi jaarale moto dinañ ko jël yëpp ko seen camion yooyu te di ko ñàkk wax naa ko nag jël leen ci oto yi ci ngir li war touré jël ci 4x4 yi jël ci taxi yi ñi am njaganjaay jël njaganjaay ñi am super jël super ñëw màggal ci jàmm màggalu Serigne Touba gi